ay ñaar ñi booy xool ma ñooñ xool ñaar ñi aree leen

Ako. Atet lang. May saswa. Yes! c'est que ñii dañoo gën a muus. dañoo am ñaar ñu nekk fii nii bal bu ñu dégg ñoom lañ ko jox ñu paasante dugal. kii nii waaw. dañ leen muus. mais ñii seen njool bi moo fi nekk fii gars yi kenn xamul lu muy def. njool mi numéro 13 bii nii. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, yaa ngi def fot ñu génn sa sa heures ba pare nga bëgg a moom fot moom numéro fu mu jëm te am sérieux

booy boo dëkk. muy waay. muy liggéey. fan lay liggéey. fan lay liggéey. koy ndey faatu ñappal maa maa